élèves yi lee ñu ngi xeex daanaka ñaari weer a ngi nii seen bëgg-bëgg mooy lu ëpp ci fanweer ci seeni xarit ñu mën a daal di def examen bi di baccalauréat foofu ca lycée Blaise Diagne. ay buntu pour jéem a ut solution boobu noonu. dem nañ directement office du bac dem nañ ci suñu administration respective yi dem nañ aussi bon jàll jëm nañ koo jàll itam si yeneen presse yi mais jusqu'à présent ça n'a pas marché et cela depuis deux mois. ñu ngi ñaan nag directement état bi pour comme ça mu jéem ñoo jàppale ñu def bac juillet ndax so gannaaw bi nga xamante ne xool nañu fu ne yëf yi mënta antu ca noone ñuy woo njiitu réew mi Macky Sall mu daal leen wàllu ndaxte diir buñ leen joxoon moo xaw a gàtt ci ñoom. yaanaa yoo xam ne nag bàyyi nañ franchement naa ñoo xam ne nag bàyyi nañ am na ñoo xam ne tamit ñu ngi continuer ñu ngi continuer man rek am na ñu ma ci bokk classe ñu ngi continuer ba tey mais la majeure partie nag franchement découragé nañ. parce que tamit jàng huit mois. ñu ci bëri nag daal di bàyyi lekkool waaye nag ñenn ñi ñoom ba tey am yaakaar ni dinañ leen mës a jël ba léegi ñu ngi suivre seeni cours.